dégg lii xam nga Macky muy xeex immigration mais xam nga Macky Sall Macky benn défaut la amoon. Uh-huh. Macky Macky Macky nit la ko xam dama ko estimer dama ko bëgg parce que Macky c'est un ak lu mën a xew. Uh-huh. liggéeykat la jàmbaar la bëgg na Sénégal patriote la mais Macky benn cat catlaam bi daloon Abdoulaye Wade ko dal mooy équipe bu bon Macky amulul équipe sénégalais bu ñu ko sanctionné équipe bu bon a tax Macky nekkul di contrôler lépp.

te man loolu liggéey naa ko ndawi réew mi te boobu ba ma koy taxawal ministre yëpp dañoo ànd di xeexal ak man pour projet bañ sotti ma xeex ak ñoom ba Macky Sall woo ma ñu toog biir biir bureau man ko président kat gis nga lii boo ko defee nga valider ko pour ndawi Sénégal jàmm dina ci réew mi boobu projet bi moo nekkoon projet nawetaan agricole dama ne woon ndaw lu ci nekk rek. Mm-hmm. wala ñu créer ay entreprise sous entreprise ndaw ndawaan. mën nga ci projet boobu noonu. waaw ñu ne entreprise ndaw ndawaan laa ne woon dañ koy créer mm-hmm. créer une entreprise. 10 personnes, nous avons travaillé dans une entreprise qui nous a accompagné pendant 2 ans. Nous avons fait 30 millions. Nous avons fait 2 hectares. Nous avons fait une campagne agricole. Nous avons fait une commercialisation. Nous avons fait une commercialisation vous a fait un bénéfice de 60 millions. vous avons fait une entreprise qui nous a fait. Qu'est-ce que nous avons fait? le un projet. Nous avons fait un projet. Nous avons un projet agricole. vous même étudiants yi nga xam ni te d'ailleurs sax état bi lii loolu laa wax ministre de l'agriculture yi par WhatsApp moom la jël nii ñu dem élaborer ko ci benn dossier circulaire di ko distribuer jamono yi leen ma ni leen état kenn du ko yor ci WhatsApp loolu laa loolu sànq nii ma ni la bi ma ko waxee président ma sax ma ni ko bu vacances jotatee université ñi nekk ci lycée ñooñu ñu mën leen yóbbu vacances agricole moo tax mu tuddee ko nawetaan agricol su ko defee ñoom tamit ñu dem ay def ay expérience ci secteur agricole mm-hmm.

mais du ma leen ko parce que président man la ko dénk